yàlla bu baax nag di julli ci yonent bi ci liñ may ñu teew fii tey teew ci arène nationale bi ci waxtu waxtaan wu am solo ndaje mi bokk na ci ndaje yi gën a am solo ci wàllu sport ak wàllu santé ñëpp xam nañu ne fan yi wala at yi ci gannaaw ket nañu fi ñi nga xam ne bëri nañ ba ñëpp xam leen nekk ci ay jafe-jafe ci wàllu wërgu-yaram te mënuñu faju loolu nag problème bu amee ñi ko jiitee ci xalaat lañ war a ne pour trouver ay solution moo tax ñu gërëm bu baax Gris parce que nag lii ci initiative am la ànd ci ak Mbeng mi nga xam moo jiite union régionale des mutuelles de santé de Dakar ànd ci ak chef de service bi yore couverture maladie universelle ci région bi ànd ci seen partenaire ko si COSIDEF ci liggéey bi nga si ko def bi nga xamante ne moom ba ñu commencé yëngatu ba tey dafa ànd ak ñoom ci liggéey boobu kon li war a lëkkale association des lutteurs ñi bëreek ñi bëreetul mag ñi ak ndaw ñi ak couverture maladie universelle ak mutuelle yi mooy fexe ba jafe-jafe yooyu mag ñi doon dund ndaw ñi duñu ko dund mais mag ñi fi desit dootuñu ko dund mooy ku feebar mën a faju boo amul koppar yu bari it fekk na mutuelle bi jiitu na la ci pour lépp luñ la war a faj ñu mën la ko faj loolu nag bu amee ñu xam dayo mbëri ci réew mi dayo làmb ci réew mi état du Sénégal mënul lu dul li ko président Macky Sall bëgg mu taxawee ñun ñu ñëw ci seen tur taxawee ko ci seen wet mooy gunge leen ci yëf yi gunge leen ci jël en charge yenn yi ci cotisation yi moo tax ñu annoncé fi ne bu ñu signé ba Coupe d'Afrique bi passé bu ñu ñu see ñu def cérémonie dinañ war a mën a teg ci taabal ji pour cotiser mbër yi cotiser ñi nga xam seen loxo jotu seen gannaaw ci wàllu lu toll ci ñaar fukki millions. loolu nag bu ñu démarré mu dox dinañ jàll ci yeneen jéego parce que lii tax président Macky Sall jóg li tax état du Sénégal jóg mooy ku feebar mën a faju surtout làmb nga xam te ne dafa métti te làmb bokk ci li doxal réew mi làmb bokk ci secteur bi nga xamante kenn mënu koo doyadil li ci des nag mooy dénk leen su état bi def effort tabax arène nationale taxaw seen wet ci wàllu wërgu-yaram taxaw seen wet ci wàllu sécurité su amee ñu bëgg a yàq làmb ji nag di andi xuloo di agressé nit ñi di yàq li nga xamant moom la ñuy def comme investissement ki ci war a jiitu mooy mbër ñi parce que mbër yay bëre ñoom ñooy jël xaalis di ko yóbbu seen kër yi suñ demee ba làmb yàqu ñoom ñooy njëkk a perte kon xam naa ne kuy bëgg làmb mbër ngay gunge parce que moom la ñuy dund ñoom moo tax ma demandé Gris ak mbër yi Sénégal yëpp ku ci ne a dajale ñi muy àndal ni ñuy defee préparation pour mën a bëri ji nañu def préparation open press yoo xamante ne du nekk lenn lu dul sensibilisation wax ak nit ñi ñu xam ne xeex ak xulo amul place ci làmb amul place ci sportu Sénégal lii nag bu continuer ñii leen di jëwee ne làmb yëfu histoire la ñii leen di jëwee ne làmb lu doye di la su ngeen continuer nii da ngeen leen di jox dëgg te kenn waru leen a jox dëgg parce que ñu ñëpp xam nañ ne làmb suñu cosaan la jéggaaniwuñu ko bu ñu respecté làmb lañu war a jiital ci respect bi nga xam moom la ñu am ci discipline sportive